Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de allodakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
maaleykum again yegg si nañu bintu mu ngi nii bintu yegg si na di la wax mu mi baale laa lay tarale laa lay teeroo ndax doo fekk fu ñu may néewale yaa ngi dëgg coono ko wax kon nag yow itam wax naa la ko tey it macha allah di la wax dalal ak jàmm ci Allo Dakar macha allah ndax bi nga duggee yàggul waaye fan yëpp yaa ngi wane wax dëgg yàlla. jàmm ak salaam bintu tappi baa ngi ne lalal. waa bisimilah bintu fëgg nga yegg sil ñu ngi lay dalal. macha allah
auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rajo Allo Dakar maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant macha allah di leen ziar di kontaan lool ci invitation bi ak si ñëw bi nga xamante ne fii laa ñëw bi nga xamante ne moom mooy rajo Allo Dakar soo dama lay nuyu bu baax di la ziar. di nuyu ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di kontaan lool si invitation bi macha allah di ñëwaat na di jégaluwaat bu baax nag si képp ki nga xamante ne yaa ngi déglu rajo Allo Dakar si tardement bi ndax xam ngeen ne heure yi bokkul fi mu nekk nii ñoo ngi si quinze quatorze heures kii quatorze heures et demi te xam ngeen ne heure boobu moo tax heure bi dañuy julli tisbaar ak yooyu moo waral tardement bi. mais maa ngi siy jégalu bu wér a wér a wér di nuyuwaat ñëpp di ziare ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant maa ngi nuyu kilifa yi fi nekk kilifa diine yi kilifa aada yëpp maa ngi leen di ziare kenn ku nekk fi ngeen nekk rek maa ngi lay nuyu bu baax di leen di leen ndokkeel macha allah.
waa Bintu macha allah balaa ñuy tàmbali dañu bëggoon nga présenter kuy Bintu suñu paree nga ñëw wax nu bés bi nag te bés bi dafay spécial tey bés bi dafa spécial te bés bi bésu lan la. tey mooy mercredi mercredi lan la ci Touba nga ñëw rek ñu daal di étaler affaire yi daw ndànk ba yegg ca bàkki démb màggal ba incha allah.
waa jërëjëf Soda maa ngi lay nuyuwaat bu baax di remercier man maay maa ngi tudd Bintu Seck maa ngi dëkk Ziguinchor fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa fekk baax samay waajur aussi fii la ñu juddoo mu judd na si diggante pël ak lébu. sama yaay pël la sama papa libu la mu juddoo fi nag yaroo fi fekk bi fa baax jàngee fi école màggee fi li nga xamante nag moom mooy sama profession nag mooy commerce ndax dama ko doon ci sama yaay dama ko doon ci sama yaay damay commerce actuellement nii damay commerce Dakar Ziguinchor Ziguinchor Dakar lépp li nga xamante ne lépp li nga xamante ne produit Casamance la rek dama siy yëngu. di ko emporté mu ñëw Dakar macha allah loolu daal si gàttal daal doomu Casamance la nekk nekk jigéen nekk femme de développement nag di yëngu nag si mbirum développement lépp li nga xamante ne bu ko jigéen defee rek da si gis boppam ndax xam ngeen ne jamono bi nekk ni léegi góor baax na jigéen baax na kon nag man si loolu laay yëngu di ñaan yàlla yàlla barkeel ko macha allah. waa Soda tey la. kii mercredi ñu koy woy alarbarkar yi mag yi daan si digle ñàkk sangu ñàkk fóot ñàkk tukki ndax bés bi dañuy wax ni tey la balaa yi di wàcc bés bi tey dañuy wax ne sax képp ko ko xam rek bul tukki ndax bés bi dafa nekk bés bu bés bu nga xamante c'est spécial lépp li nga xamante ne sangu la lépp li nga xamante ne fóot la lépp li nga xamante ne tukki la nañ ko si moytu mais nag du forcé tegtal la rek bi nga xamante ne mag yi ñoo ko fi bàyyi woon mag yi yëpp ñoo ko fi bàyyi woon aada la nag nekkul li nga xamante ne islaam la mais aada la aada bi nga xamante ne mag yi ñoo ko digle woon bàyyi ko fi mu nekk nag tey mu tombé alal ba mercredi bi nga xamante ne moom la ñuy woowee alal ba kari bi nga xamante ne benn yoon lay ñëw si at bi tey nag mu tombé loolu macha allah mag yi nag dafa am yi nga xamante ne moom dañ ko fi bàyyi woon muy ay tegtal ay li nga xamante ne moom mooy ay njiglaay ndax dañ ko daan digle ba si sax takk sëy mag yi dañ ko daan seet di seet bés yu baax yi nga xamante ne moom moo baax ba si tukki dañuy xool bés yu baax yi ndax dañ ko daan digle par exemple nit buy tukki day ñeneen dañuy dañuy sotti ndox seen ginnaaw ñeneen ñi dañuy dañuy génne sarax te loolu yëpp di nga xamante ne la ah mag yi ñoo ko fi bàyyi woon mu nekk njiglaay xam na xale yi nag tey jii àdduna dox na mais nag war nañu mun a for quelque ñi nga xamante ne nag dañ koy jëfandikoo ndax mu nekk bénéfice ci ñoom voilà du forcé nag jamono dox na nag mais du forcé parce que nekkul diine tegtal la rek yi nga xamante ne mag yi ñoo ko fi bàyyi woon ku ko def wàññiwu la dara ku ko def aussi deful aussi wàññiwu la dara mais nag comme mag yi ñoo ko fi bàyyi woon ñu ko daan digle ci bés bi ñu ko daan digal xale yi dafay am solo ñu koy xam comme ça ñu siy bàyyi xel di ko moytu waaw du forcé nag du forcé dafa nekk li nga xamante ne rek tegtal la te tegtal am na solo ndax nit ki dina gënt génnee sarax yàlla musal ko ci gënte googu kon nag lii tamit tegtal la yi nga xamante ne rek mag yi ñoo ko fi bàyyi woon
waa Bintu Seck ma ñëw ci ci ca bésu mercredi bii àllarba kari di wax ne que aada bu salte la ah doo fóot ah doo sangu ñu teg ko fan jullit dañ ko ne sàngul jàppal na set a set soo yére yi tilim doo ko fóot ca bés bi pour lan bu dee bés bi rek nga amoon jot nag ca gàttal nag pour war fi mën a fóot heureusement mu nekk aada waaye aada boobu nañ ko dàq ca xaj ndax salte na
asalaamaaleykum kullu forum Allo rajo Dakar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar lu wér-wér maa ngi nuyoo ñi ma fekk si bunt bi yëpp cat ba cat bawuma kenn di fekk si bunt bi soxna Bintu Seck nuyu naa la ziar naa la di la jox sa wàccuwaay di nuyu diaspora di la nuyu di la ziar diaspora ziar lu wér-wér ah si ah si route ah si nuyu naa la di la ziar di la seet di nuyu ñi dugg si suba si yëpp. mbay tooma nuyu naa la soxna umbu baas di la nuyu di la ziar yegg sa kaw fekk fa soxna Fatima maa ngi lay nuyu Fatima di la ziar lu wér a wér mbay gay tooma nuyu naa la ziar naa la di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay waxtaan bi commencé na xaaral ma ma taaxirlu jas soda ñu ngi lay déglu yow ak soxna Bintu Seck ñu ngi leen di déglu
waa maa ngi nii di seen Babs Ndiogu ak Fapes Fapes toog na Babs ah waaw yegg si leen ci jàmm ak salaam ñu xaar rek ñu commencé tàmbali waxtaan bi macha allah di kontaan vraiment ci dalal beeg lépp nag waxtu gi yàlla di leen invité nag ci question yi dina am solo lool.
waaw macha allah Babs Ndiogu maa ngi lay nuyu bu baax di fay sa nuyoo macha allah di kontaan Soda macha allah déglu naa la bu baax a baax a baax xam nga mag yu njëkk yi bu ñu nee doo sangu. bu question ne da ngay xëy suba rek dem sa yoon da ngay def sa toilette mais doo sangu ndax sangu dafa am li nga xamante ne ñaari façon la nit ki mën nga def sa toilette te doo sangu mu nekk li nga xamante ne léegi fi mu nekk nii sa xale yi toppatuñ ko mais dafa nekk li nga xamante ne mag yi njëkk yi ñoo ko fi bàyyi woon bu dee fekkee ne aada la leer na aada la mais mag yi ñoo ko fi bàyyi woon mag yi ñoo jox ñoom ñoo jox ñoom ñoo joxe woon tegtal si bés bi te bés bi tamit képp ku ko xam rek moytul ndax dañoo judd Afrique te aada daf fi bëri bu ñu nee sangu doo sangu maanaam yow da ngay def sa toilette da ngay def sa toilette mais doo dugg si duus di summee ko ba set du sotteeku ndox. ndax sangu mooy da ngay dugg si duus nga simmee ko ba set sotti ndox sa kaw si sa sa yaram ba ci suuf mais bu ñu nee doo sang mais da ngay jàngu mag yi dañ daan jàngu dañ daan def seen toilette dañ daan dugg si wanag bi def seen toilette mais daaw ñu sangu daaw ñu si fóot daaw ñu si tukki ndax dañ daan ne bés bi nañ ko si moytu mais moytu ak bàyyi du benn waxuñu nañ ko bàyyi mais dañu ne nañ ko moytu parce que bés bi rek lañ ci lañ ci soxla woon te comme bés bi nag ñu bari xamuñu ko nag moo tax ñu ko daan digle soo bàyyi mercredi yëpp doo sangu bés bi su ñëwee yaakaar naa diñ ko yow doo ci bokk kon tegtal la du loo xamante ne forcé la te mag yi bàyyi nañ fi yu bari nag bàyyi nañ fi génnee sarax bàyyi nañ fi li nga xamante ne moom mooy ngay tukki nga léemu ndax nit buy tukki day toog soit avion wala oto da ngay toog si avion bi nga léemu yaa xam loo mën a jàng kon nag bu nekkee aada aussi yaakaar naa ne am na yi nga xamante ne moom war nañ ko mën a téye am na yi nga xamante ne nag war nañ ko mën a bàyyi mu ànd ak aada mu ànd ak mag yi njëkk yi mais am na yoo xamante ne war nañ ko mën a téye ndax muslaay moom du doy soo def muslaay du doy.
salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu maa ngi nuyu waa kër gi di leen ziar waaw di di nuyu ñooy mi ci débat démb bi parce que information bi jot moo tax mënu ma woon dugg mais xam naa beneen incha allah waaw di nuyu Soda Dia ak Bintu Seck sama mag yooyu di leen di di leen ne dalal jàmm seen émission bi maa ngi dem defi julli ñëw macha allah di nuyu tonton Raps ma fekk ci buntu di déglu seen débat bi ñoo tamit barkelu ci jaajëf waay ziyaarax màgga waa Fambaye ñu ngi lay nuyu di la wax yegg si la jàmm ak salaam yow Pape Daouda Sène macha allah di kontaan macha allah.
ah macha allah allo Dakar maa ngi leen di nuyuwaat bu baax di nuyu Fambaye madame Dadi maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu ñëpp di ziar ñëpp macha allah di kontaan nag si waxtaan bi ah di yaatal rek waaye kenn ku nekk rek. li ngay li nga indi am na solo mais dañuy waxtaanee si xam-xam bu tuuti nag li ñuy dégg mag yi daan ko waxtaanee moom la ñuy moom la ñuy waxtaanee nii rek mais du xam-xam du dara mais xam nga nit ki soo amee déglu rek dina am yu bëri yoo xamante ne nag di nga ko dégg te tam man dama ne waruñoo bàyyi lépp am na yoo xamante ne nag war nañ koo mën a téye nag ndax noonu bi nga xamante ne suñu maam yi moom lañ moom lañ fi bàyyi woon ndax ñun tam ñu bàyyi ko suñuy njaboot macha allah.
waa Bintu Seck nag ñëwal nag macha allah ci màggal gi. lu waay lu waral màggalu Tuuba te ma dama ne comme sëriñ bi dafa digle woon ne ku ne fi nga toog nañu ko fa màggalee léegi nit ñi di riir ji Tuuba pour lan man man lu ma gën a yéem mooy dee ci mbedd bi est-ce que les gens sont conscients de cela mu jaral leen seeni bakkan ñuy daw di dem te kuy dem danga naan maa ngi dem yal naa yegg si ñibbisiwaat ak jàmm ak salaam lu waral loolu yëpp donc màggal bi laa bëggoon nga jox ma lu waral màggal Tuuba ba pare. après ñu soog a dugg ci bagage yi.
alors asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu maa leen di ziar ak waat yéen ñëpp ñi ma fi bàyyiwul woon xëy na lim tur yi dafay xaw a compliqué comme émission bi ndënd bi taaju na bàyyil ma jël nuyoo bi rek jox ko sooda ak garam gi ñu koy wax Bintu Seck Bintu dalal ak jàmm waaw ma dégg seen tàmbalee émission ñuy wax naan daal sangu am na ay vidéo yu ma envoyé te léeg-léeg ma dégg ko. naan ay sangook fóot ak ay yooyu noonu baaxul ma dégg bintu ne aada la boo xam ne boo ko deful wàññiwul dara waaw comme wàññiwul dara te sangu moo gën bañ a sangu fóot moo gën bañ a fóot te wàññiwul dara maanaam amul risque waaw donc kon est-ce que aada est-ce que loolu loolu am na am na sens am na njëriñ waaw maa ngi taaxirlu nag di déglu en attendant ma am yu ma dox ay muraada rek après daal di dellu si waat ci waxtaan wi. à tout à l'heure Soda jaa ngi def.
waaw macha allah papis di la wax ni effectivement jour bi tey mercredi comme dafa spécial te tey la tey tey la bés bi ñu ne bu kenn sangu bu gën a fóot ndax aada la maam yee ko fi bàyyi woon bintu sene nee na ma aada la te aada mooy mooy loolu bu la arrangé def ko bu la arrangé wu def ko ndax dañ daan wax sax ay bés yoo xam te ni ci la ñuy tàkk jabar ay bés yoo xam te ni ci la nit war a tukki waaye taxul ñëpp a ngi tukki wante aada boo ko boo nee na boo ko boo ko suivre ndax maam yi liñ fi daan bàyyi aada la téere la mais man aada bi dàq naa ko ca mbalit ba salte na de moo tax man nanguwuma ko nag aada bi moom nee naa ko duma ko nangu tey duma ko nangu ëllëg dàq naa ko ci xaj ndax aada bi moom salte na yeneen ñi d'accord naa waaye bii moom baax na waaw wallaay macha allah léegi bintu loolu da entre parenthèse la woon rek kon bés bi moo ko wane moo tax ñu taxawoon ci bés bi rek waaye ñu ngi ñoo dugg ci ci waxtaan bi nag.
Soda jaa ngi def.
waa papi sa macha allah maa ngi lay nuyuwaat bu baax di la ziar li nga wax am na solo maanaam li nga tëjee euh, débat bi nga xamante ne moom mooy bésu tay bi am na solo nekk na li nga xamante ne aada la du diine aada bi nga xamante ne mag yi ñoo ko fi bàyyi woon di si bàyyi xel su bés bi dellu si waatee ñu naan bu leen sangu bu leen fóot bu leen wat bu leen tukki mais aada nag du nekk loo xamante ne boo ko defee baax na si yow boo ko defulee tam baax na si yow wàññiwul dara wàññiwul dara mais day baax aussi ñuy xam bés bi ñuy xam bés bi nga xamante ne kat ñëpp dañ koy moytu dafa baax rek nga xam ko bu ko defee di nga mën a xam yow nan ngay tegtalee sa njaboot ne bés bi kat lii ak lii ak lii lañ si digle Euh, mu nekk li nga xamante ne nag lu mat a bàyyi xel la lu mat a xam la parce que bés yi bëri na nekkul nekkul bés bi kese mag yi bu ñu takk sëy dañuy xool si woo dañuy doon xool si weeru olof ñoom xam nañu bés yi baax yi ak ak ak ak dat yi baax yi di ko jàpp di si takk ay sëy di si muur seet loolu yëpp mu nekk li nga xamante ne tegtal la tegtal la rek du loo xamante ne soo ko defee waa lii parce que amul kenn ku mu sane yow boo sangoo di moo lay dal amul kenn ku mës a ne bu fekkente ne sangoo lii moo lay daal mais dañu ne rek dañ ko moytu kon loolu jot naa leeral bés bi dañ koy moytu mais du loo xamante ne la diine la du loo xamante ne la ku ko def mosuñoo mosumaa dégg ñu ne soo defee lii kat lii moo la ciy fekk mosuma koo dégg mais dañu ne moytu leen ko ko- comme comme ni nga ko waxee ku mu neex sangu ba set ku mu neex jàngu mais bés moom nit ki dañ koy xam voilà merci beaucoup Papis. boo xamante ne waa macha allah Soda euh, man ni ma gisee màggal lu ko waral man dama ne màggal ñaan bu nangu la te olof yi dañuy léebu ne ñaan bu nangu sonal borom ndax màggal ñaan bu nangu la ndax bu ñu delluwaatee si ginnaaw tuuti bés màggal bi tey ku ko sabab lu muy jigéen muy kan maam jaaru Bousso yaayu Serigne Touba Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu yan na yàlla yo- yokk leeram tax ñu si barkeem mais màggal man su ma ko doon définir damay ne màggal ñaan bu nangu la ndax ñëpp xam nañ ne keroog bi nga xamante ne ki nga xamante ne moom mooy Mariama Bousso radiyallahu taala anhu keroog bu ñu koy jox borom këram dafa am lu mu waxoon te jigéen bu nekk rek war koo mën a bàyyi xel ndax dafa dafa dafa tombe ci saar bi nga xamante ne moom la yàlla buur bi subhaanahu wa taala ne gannaaw seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaakaari jullit yi beneen yonent dootul ñëwati si muhammad yonent si la yem yonent jeex na si kaw suuf bi mu ko déggee nag moom daf ko mettitlu ndax dafa ne moom waat na ne bu fekkante ne woon yonent jeexul si kaw suuf moom maam jaaratullaa dina jur yonent mais comme jeex na waaye dina fi jur loo xamante ne ñëpp dinañ ko dégg kon màggal man su ma koy définir damay ne ñaan bu nangu la comme rek ñu ko ñëpp xamee rek comme ñëpp ñëpp di déggee rek ah dañuy wax naa ne ñaan nag bu nangoo day sonal boroom kon nag bu ñuy wax màggal kon jigéen am na ci taxawaay bu rëy jigéen moo sàkku woon ñaan ba ñaan boobu nangu bu wàcc ci njabootam ba tey Sénégal yépp bépp jullit du monde entier di si jëriñoo si ñaan boobu kon ñaan bi nangu na kon ñaan boobu tey jii moo law tey ba heure bii te dina law ba ëllëg yow ma xiyaam macha allah kon nag dañ si rendaare hommage mënuñoo wax màggal te duñu tudd ki nga xamante ne moom moo sakku woon ñaan boobu ki nga xamante ne keroog bu mu dugg si biir néegu sëyam te dañu ne sëy xare la saa yow si juree doom jam nañ la kon nag moom dafa taxaw ne su ma maa ngi dugg si xare bii mais dinaa fi am ndam ndam boo xamante ne képp kuy jullit rek dañ si jariñoo ndax ñëpp xam nañu ne yonent Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee nañ moom moo mujj si àdduna mais moom neewoon na ne bu doon bu doon du woon du woon yonent mu jëwuloon moom dina jur yonent kon moom déjà moom xam na fu mu jëm te xam na fu mu teg tànkaam kon nag tey bu ñuy dem màggal dañuy xam ne jigéen moo moom moo taxawoon ñaan jigéen moo tax taxawoon samp ndëndëm ni fi may dugg nii dinaa fi jur loo xamante ne ñëpp dinañ ko ñëpp dañ ko dégg kon macha allah maam jaaratul laa borom ki nga xamante ne dafa dund 33 ans yàlla jël ko waaye macha allah euh, maanaam ni mu dund am na njariñ kon kenn du ne màggal rek te doo tudd maam jaaratul laa macha allah moom mi nga xamante ne moom mooy borom ñaan bu nangu.
macha allah macha allah bintu li nga indi am na solo ndax ñeneen ku judd rek jigéen a la jur macha allah di wax ne nag mu daal di am fii dégg nuy wax am si général liggéeyu ndey añu doom la lu mu liggéey moo tax tey doomam añu nii yaa ngi dëgg doomam di Cheikh Amadou Bamba mu demoon dem ci tubaab bi yóbbu ko mu def fa lu kéemaane ba yegg si tey ne màggal leen ma bés bi jaajëf mbintu di wax ne xuusal Cheikh Amadou Bamba moo woote màggal bi ndax liggéeyu ndeyam wallaay macha allah moo tax ñu ngi delloo njukkal jigéen ñi di dellu si waat di rafetlu bés bi di wax waaw waaw Cheikh Amadou Bamba moo woote màggal bi léegi lu waral ku ne toogoo sa kër def ko fa.
waa Soda dëgg la ndax Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu yan nañ ko yàlla fayal. moom moo bàyyi woon dénkaane bi moom moom daal bu muy lii nag li nga lii rek ma dénkaane woon ñi nga xamante ne ñooy mbokkum jullit rawatina mbokkum taalibe yi ay taalibeem lii la leen dénk de bés bu su del si waatee muy weeru safar fukki fan ak juróom ñett dañ ko sante la yàlla bés bi naka lañ koy santele yàlla mu ne nañ ko tuural deret xeebul ginaar bul xeeb ginaar bul yéem gëlëm maanaam boo maanaam bul am ginaar ba nga xeeb ne man xeeb naa ginaar bi dafa tudd si bés bi waaye bul am gëlëm ba nga ne man sama gëlëm bi kat ëpp na bés bi loolu olof dinaa bul xeeb bul yéem mu nekk ndénkaane bi nga xamante ne moom loolu rek la fi loolu mooy ndénkaaneem xam ne moom la dénk ko jullit yépp amul xaj amul seen ndax nee na yàlla nangul na ko ñaanam kon nag moom sant la yàlla dañ ko dañ ko sant la yàlla bés bi kon nag moom moo ko woote woon moom moo woote woon dégg naa sa commencement bi sax magi daañu ko daan nañ ko wooyee tabaski waat ndax neex gi mu neex ndax ñu si doon digle benn rek nit ñi ñu ko daan ñu ko daan feetoo ñu ko magi kontaan ba di ko wooyee tabaski waat mais moom moo ne dañ koy wooyee màggal ndax ku màgg ndax ku màggal màgg. kon nag taalibe nag téye ko fukki loxo nag ndax ñëpp xam nañu yoonu murit nan la ci taalibe yi xëree nan la ñu bëggee Sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim nan la ñu yaakaaree Cheikhul Khadim macha allah kon nag taalibe yi téye ko bu baax fonk ko lool mu nekk patrimoine boo xamante ne yaakaar naa ne tey fépp fu jullit nekk rek tey ba ñuy màggal tey rek yaakaar naa ne di nga xamante ne tey bés bii mooy bëgg Sëriñ Tuubaa bu nga xamante ne moom la dénkaane woon aussi. màggal Tuubaa am na solo mais nag aussi màggal Tuubaa am na solo ndax tey fu Tuubaa egg macha allah bañ ko woyee ville lumière màggal gee tax ndax taaliba yi xër lool bëgg lool Serigne Touba ak ak ak njabootam xam ne Serigne Touba njëriñ kese la xam ne Serigne Touba képp ku topp ay digleem yow da nga yokku ba yëg ko moo tax. màggal muy man sama xalaat bu bopp màggal muy yóbbu màggali Touba moo tax màggal am doole parce que bu ñu gisee avion yi di naaw oto yi di riir di dem fu ñu dem Touba ñëpp a jóg ñëpp bëgg egg Touba kenn ku nekk am sa yéene fasante ko ko ne man maa ngi fas yéene dem kat màggali Serigne Touba bësam bii si dëkkam gii nga xamante ne moom mooy Touba kon macha allah te màggal egg dimension boo xam ne tey monde entier ñoo ngi màggal. ba dem ba nga xamante ne sax chrétien yi sax ñi nga xamante ne bokk ñoom ñoom diine sax ñu ngi dem di découvrir Touba ah am na solo am na solo kat macha allah te bu fekkente ne ñu ngi bokkoon diine ñu ngi bëgg a jóge seen dëkk ñoo ngi découvrir Touba kon nag rawatina ñu ñu nekk Sénégal kon nag du question ne chaque année nga dem màggal mais nag dem màggal aussi am na solo mais toog sa kër aussi màggal ak say njaboot am na solo ndax dina tax nga xamal ne say njaboot ne bés bii kat. bësu Serigne Touba moo ko digle muy weeru safar fukki fan ak juróom-ñett nga xamante ne képp kuy jullit rek da ngay yaa ngi eh, yaa ngi def si yaa ngi si def li nga mën na lépp loo mën ren def ko bu déwénee day yokku kon nag macha allah soo dem Touba aussi am na solo dem dem màggali am na solo mais nag soo mënee nga dem soo mënoo nga toog sa kër bendal sa njaboot bendal sa bopp sant la yàlla sëriñ Touba bés bi macha allah.
salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di ziar bu baax man la Malick Dieng ah, di leen nuyu di leen ñaanal yàlla defal ñu jàmm àllabay jàmm ah, di nuyu Soda ak ah, Bintu ah, di nuyu Fambey di nuyu am Papis maa ngi lay ziar bu baax di nuyu Pape Daouda am, di nuyu mbokk yi dugg yëpp ñoom Bab su Njoogu maa ngi lay ziar bu baax waaye Bab su Njoogu Njoogu Faama Achirus maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp gars yi maa ngi ziar ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp rafetlu waxtaan wi rek xam naa ne buñ ci mënee participer incha allah dinañ ci dugg jërë ngeen jëf waay yàlla nañ yàlla may ñu yendoo jàmm.
waa Malick Dieng ñu ngi lay nuyu di fayoo nuyoo macha allah di kontaan di wax ne que waa macha allah ñu ngi xuus nag ñu ngi xuus ndànk di yegg si macha allah di kontaan. waa Bintu man de màggal bi wax dëgg yàlla rafetlu naa ko nag man lan mooy sama problème mooy euh, li ma gën a remarqué foofu mooy yàq kese laa fa gis yàq yàq bu ëpp bu jéggi dayo ma xam ne ni que euh, bu dee ne nga Serigne Fallou moom visionnaire la woon wante yàq am na yàq bu bëri sax ah bu dee Serigne Touba dafa ne bés bi màggal leen ko te bernel bernel meaning la fête mais ku ne mën nga toog sa kër nga fête ko foofu waaw d'accord ne nga boo ko mënee soo ko mënul demal waaw boo demee lim fa nekk lim fa remarqué mooy yàq bu dul jeex man man man dama gis benn vidéo moo waral ma taxaw ci bés bi sax tey macha allah vidéo bi dinaa ko dugal léegi ma xam ne ni que Sénégal nekk na dëkk boo xam te ne ndóol na ba jaaxal ñëpp foofu ku fa añ doo reer ku fa reer doo ndékki ok léegi nag euh, ñëpp di riir dem Touba waaw parce que lim fa nekk li fa ne bés bi moo màgg dañuy rey ñii di naaw di ñëw pëpp ñëpp barki démb rek lañ fa rey ndeysaan benn waay boo xam te ne pas rey Suba sax mais dafa jóge woon France bàyyi lépp pour màggal si faf ñu rey ko police yi rey ko fa waxtaanee nañ ko fi entre parenthèse la woon di wax ne que bés bi vraiment ñëpp ko fonk sax léegi fépp fu jullit nekk ci bitum réew même ñun ñi nga xamante ne ñu ngi fii jour ba keroog fii New York màggal nañ ko donc ba Espagne ba Italie ba France ba lépp mais est-ce que yàq bii ne Touba dafa dëgg jéggi dayoo nag maa ngi indi vidéo bi di wax ne que franchement yàq bi jéggi na dayoo visionnaire bi Serigne Fallou doon wax est-ce que nii la ko bëggee woon ou pas maa ngi ñëw pour vidéo bi incha allah.
waaleykum salaam Malick ñu ngi lay fay macha allah di la nuyu di la ziar di rafetlu li nga xamante ne tey mooy waxtaan bi macha allah di nuyuwaat ñëpp nag képp ki nga xamante ne yaa ngi déglu ak rajo Allo Dakar ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la ziar di la jox sa wet li nga xamante ne moom mooy sa wàccuwaay ñuy waxtaanee nag li nga xamante ne moom mooy màggal taxawaayu jigéen ndax bu ñu nee màggal rek jigéen mooy li nga mooy ki nga xamante ne nag moo si ëpp taxawaay. ndax gannaaw bi nga xamante ne borom kër gi góor ñi génnee nañu moyens yi teg ko vraiment góor ñi ñoom ñooy génnee moyens yi ndax jigéen amul doole mais nag mbirum mbernde mi yeeg mbirum togg mi yeeg mbirum installé gan yeeg ah vraiment loolu jigéen ñee ko yor kon nag macha allah ñu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy taxawaayu jigéen si màggal tey comme ni ma ko waxee rek si commencement ba dañ ci dañ ci rendre hommage ki nga xamante ne moom mooy sunu yaay di sunu maam. Mariama Bousso macha allah ñu ngi ko si rendre hommage bu baax a baax a baax. waa Soda macha allah gis naa vidéo bi de maa ngi lay nuyuwaat bu baax di la ziar macha allah li nga laaj ci am na solo ndax wax dëgg yàlla eh, dafa jara waxtaanee waaye gis nga Soda eh, dañu ne yoonu Serigne Touba amul tànku gannaaw tànku kanam la am. te nag bu ñu nee màggal nag togg bernde moo tax ñu ne màggal ndax gannaaw bu ñu nee tuur leen tere rey leen rendi leen ginaar yi rendi xar yi rendi nag yi rendi gëlëm ndax fekk bëgg na Sénégal lool nag mais màggal rek ngay gis ay gëlëm ñu koy wàcc si ndax sëñ bi moo si tudd gëlëm kon nag màggal kese ngay gis gëlëm kon macha allah mu nekk li nga xamante ne nag murit yi fonk nañ ko lool ku ne màggal nag ne togg ne bernde ne bëgg di bëggale kon nag loolu la sa taalibe yi xam ba lépp lu ñu def ren benn bu déwénee ñu def ko fukk lépp lu ñu def ren benn bu déwénee dañ koy multiplier multiplier ko parce que ñoom xam nañu solo yi bés bi ñoom lépp lañu am ñeme nañ koo def ci bés bi ndaxte xam nañ ne Serigne Touba du waxantu te waxam lépp njariñ la loolu moo tax taalibe yi bu ñuy bésu màggal bu ñëwee tey jii xam nga màggal jàll na semaine passée mois passé commencé nañu waaj dajale màggal bu dem déwén parce que xam nañ ne Serigne Touba rek moo jaral lebal ndax ñoom xam nañ bu baax naan la leen màggal jaral nga taxaw si nag nga taxaw nag si yàq ndax yaa ngi gis ni nit xëy na ñu ngi tuur ay ceeb ba si tuuraale ay yàpp ndawal waaye macha allah foofu laay taxaw nag si yàq boobu nga tudd moom laay ñëw. waa vidéo bi de wax dëgg yàlla koo gis dee nga ne lii dañ ko tuur yàq la waaye nag képp ki nga xamante ne nag da nga war a recevoir ay gat ndax ndax ku ne màggal ne gan bañ na ko ba ñu ne avion ba ñu ne avion yaa ngi naaw oto yaa ngi riir di dem léegi ku ne màggal nag ne ay gan ku ne màggal ne recevoir ay gan ku ne bañ na ko ba dañuy naan tegal leen ganu Serigne Touba yi ne képp ku bàyyi sa lal bàyyi sa kër tëj ko yaa ngi dem Touba yow ganu Serigne Touba nga lan moo la yëkkati bés bii nga xamante ne moom mooy màggal kon nag lépp lépp lu ñu terale rek waa Touba yi xeeb nañ ko lépp lu ñu bendale rek Touba yi xeeb nañ ko parce que xam nañ ne bés bii képp ki nga xamante ne rek ngay jullit rawatina ngay taalibe murit bés bii nga am kon nag ku ne màggal na recevoir ay gan te gan yi nga xamante ne yow yow yow xamoo nombre yi ñaata nit lañu munoo leen prévoir yow da ngay togg rek di teg. di fas yéene leen bernde ndax attention bernde ma ni ma ko déggee mooy nga teral nit ki si dimension bi nga xamante da koy yéem ndax bernde dafa dafa ut ak teraanga bernde daf bernde dafa ut ak teral nit ki nit ki mu nga koo teral ndax nit bu ñëwee sa kër nga jënd ko boisson rek yaa ngi koy teral mais bernde mooy nga def nit ki lu koy yéem nga teral ko lu koy yéem si ay togg si ay ñam te loolu la taalibay dégg loolu la taalibay xam ba du ñu bàyyi dara du ñu bàyyi dara dara jàll. lépp li nga xamante ne bés bi laaj na ko rek dañ ko si yokk dañ koy dañuy aalu di ko def kon nag ku ne màggal ni ay gan ñi ñu ngi jógee Casamance ñi jógee Dakar ñi jógee Thiès ñi jógee Mali fépp fi nga ñi jógee bitim réew di ñëw di màggal si kon ñooñu kenn mun leen prévoir mënoo ne cinq personnes laay sóor parce que cinq personnes ñooy ñëw kon il faut que nga togg mu des nga tuur amoo foo ko jëf mais man nag vidéo bii moom. yàgg naa dem màggal xaw ma fan la am nag fan lañ ko def ci màggal mais man de mosuma koo gis tam dama koy leeral tuur ñii ma gis ñu lal ñii si ëtt yi nii di ko tuur nii man de yàgg naa dem màggal day wax dëgg yàlla mënumaa dem fépp nag mais xanaa bokk ah gisuma ko ndax gan yi bëri nañu bëri waaye boo xamante ne mbedd mi nit ñaa ngi nit ñaa ngi dem jumaa yi bu ñu heuree dañuy dañuy woote ñoo leen benn day pare na gars yi di dugg si kër yi di lekk di teg. kon yow kooku mënoo prévoir kenn da ngay toog rek di teg bu desee nag ah amoo foo ko def amoo pexe amoo pexe mais man vidéo bi nag moom vraiment de mosuma ko gis fenn ci Touba mais nag comme dañ ko wane dafa am mais barewul de.
waa Bintou Seck macha allah di kontaan di ngay raisonné nice na di wax ni que vidéo bi mënoo ko gis parce que lii boo xoolee bërëb bi ñu ko def sax ci gannaaw Touba la donc fu ñu sànnee mbalit yi fu ñu koy tuuree lañ ko def lii rafetul ndax waa jëw ji ci kaw mu ngi wax ne que li mu lekk foofu mosu ko lekk ci kaw àddunaam waa dëgg la loolu mooy berneel kondak mais man li ma yaakaar mooy tuur bi amul solo vraiment ndax dëkk bu ndóol waruñu tuur ni lekk ni di ko tiitaroo loolu mooy sama problème comme ni nga ko waxee rek nangu na parce que nee nga kii ñëw doo xam kan la te comme da nga war a lekk bu suur ah mais lekk bu suur am na yóbbaale am na right waaw léegi man dama ne nit da ngay da ngay vision bi ñuy doon wax noonu vision boobu war na am c'est-à-dire nit ñaa ngi ñëw waaye dañoo war a mesurer nag quand même li ñuy togg ah bu nit ki di dem sax ñu jox defe naa ñu jël xar yeeg nag yi tasaare ko biir Sénégal yëpp comme dañ ne dañuy joxe taraange rek ah famille yaa nga fa ndóolu ndóol ba bëgg dee ah ñu tasaare ko foofu noonu yëpp ñëpp ku ne am ci ci ci ci ci xéwal yi. ah man moo ma gën a li ñuy rey ni di ki ndax makk makk dañuy rey xar yi mais après dañ koy tasaare ci pays yu sous développé yi defe naa loolu moo gën a am solo ko tuur ko li ñuy tuur yi man vraiment métti na ma nag moo tax tey ma bëggoon ñu taxaw ci ndax tuur bi amul solo te li ñu perte ci nit ci bakkan bëri na tam ci ci période du màggal yi boo xoolee accident yi day bëri nit ñi di def indiscipline dans tout ça là sëriñ bi lan la ciy wax képp koo xamante ne sa yoonu ci ci yoon mi nga perte sa bakkan est-ce que après derrière dañuy am ndàmpaay yu ñu lay jox ci ginnaaw parce que war na ko quand même nag ndax bu ne yéen a woote bés bi ngeen toog di xaar nit ñi ñëw ñit ñaa ngi dee ci yoon bi est-ce que après dina am suivi après magal nga xamante ni képp ku ci bakkan rot dinañ dem sa kër jaale la ah dinañ dem teral la ah parce que teraanga bëri na fa nag wax dëgg yàlla kon képp ku fa dem xëy na peut-être dina ñëw après derrière ah recensé ñi fa dee yëpp ñu dem jaale seen waa kër ah fas yéene leen ndàmpaay. man de loolu laa yaakaar ba xam ne am na kon xaalis bëri na fa teraanga bëri na fa macha allah.
asalaamaaleykum di ziar ñëpp di màggal ñëpp di nuyu borom débat yi di soxna so ak soxna Bintu di leen di macha allah seen débat bi am na solo waaw maa ngi maa ngi yëg mais damay maa ngi yëg déglu yëpp mais wàccaat naa ci suuf rek jëlee ci suuf ànd ak yéen macha allah Bintu yaa ngi ne gërëm ci màggal rek lañ koy rey. ma wax la bésu gàmm gars yi dañuy tëral gërëm de bésu gàmm macha allah dama koy gis si xaat bi dañuy tëral dañuy tëral dañuy tëral gërëm yi macha allah donc am na ñoo xamante ne ci même ci événement yi sax léegi tabaski bi ñoo xam ne dañuy bokk sax am na ñoo xam ne dañuy tëral gërëm pour bokk ndawal bi waaye ñoo xam ne seen doole demee woon noonu macha allah waaye bintu man a yàq bi man dama ko wax rek yem na ci kii bi comme tey ci temu yàq la ñu duggee damay duggee sax si xew yi sax. parce que yàq bi nga gis ni macha allah ci xew yi sax danga ko fay fekk vraiment te dalay wóor ne comme ni ko soo waxee dëkk bi métti na métti boo xamante ne lu yàlla xam doy na mais da ngay dem ci xew yi sax da ngay gis nit ñi dañuy yàq ba lii des sax dañ koy këpp ji xam nga nga xam ne yàq bi fépp la te bu ñu paree dañuy toog di jooy waaw léegi yéen yéen ñi nga xam ne tey yéen moom dem lu lan lu ñu war a mën a jublu pour yàq bi mii tuubaa ci xew yi mën a wàññeeku da ngay gis dëj sax tëj yàq yi da ciy demee noonu ñu war a mën a jàppalante war a mën a dimbalante suñu bi parce que am na ñu bëri ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw macha allah soxna soo wax na ko bu ñu añee duñu reer bu ñu reeree duñu ndékki am na ñoo xamante ne sax añ reer duñ ca jaar bu ñu xamee xasee ba am seen dëggati mburu fukki dërëm pare nañ ca bu ñu am dañ koy dàqante parce que mittaayu dëkk bi moo yóbbee loolu vraiment mais ñu delluwaat lépp suñu borom ñu wax ne loo gis lu ne rek solution war na cee mën a génne ñu war a mën a defarwaat parce que yaa ngi jàngal fii bi seet bi xamal ni màggal sëñ Touba waxul ñu ñëw fekk ji ko Touba fu waaye ne na ko fa defal man amaana ba sëñ Fallou Mbacke sama sëñ bi wootewul woon foofu noonu tey te ku yem sa kër xam nga togg bi moom lu mu neex neex dina yem ci biir kër gi waaye xam nga mbooloo fu mu tasee yàq foog mu am yàq fa mu am ba ci xawaare yi di wax comme noo gisee soxna sa su ngoye Fall suma juuma sañ sa yax yooyu noonu ndax loolu la loolu la loolu la sëñ Fall woote ci biir Touba ba parce que bu fekkee comme ni ko sama sëñ la di waxee suñu rafet ñëw di solo di simbeeku di wane di ne li nga ci def li nga ci def est-ce que jar na ko may laajte tamit ci yooyu noonu macha allah. so li ngay wax damay wax sëñ sëñ Rafi Mbacke li ma waxoon nee na bii am na ñoo xam ne bu màggal ñëwee sax duñu xam ndax màggal xew du ñu yëg sax màggal bi du ñu yëg sax neexaayu màggal bi parce que amuñu ko mënuñu ko boo xoolee ci interview Pape Sidi Fall am na benn daam bu mu interview kooku ndox lay jaay ñoom Pape Sidi Fall la dafa waa Nescafé ñoo doon defar may ay doom foofu noonu ba muy jooy mu ne moom buñ ko betteewu xamul fu ñu koy jëlee parce que ay gan yow ci ki ngay dem xam nga amul munu mais yaa ngi dem fekk ji ko pour ñu kii la mais ñoo ñoo ko may ceeb saaku ceeb ak duulu ñax lu dugg daal dañ koo jox ba mu ba mu doy macha allah tey am na ñu nekk biir tubaab ñoo xam ne sonn nañ te kër gu am na kër yoo xam ne buñ ko fëggoon yóbbu fa lekk bi dinañ ñooñu dinañ ko jël man lu may wax ci yàq bi xam nga pour man lan la lu ñuy togg dafa bëri lu ñuy togg dafa bëri te xam nañ togg bi yëpp du yem ci biir dafay ëpp ci loxo ñi parce que yaa ngi bëgg a togg añ togg reer lekk bi bëri mais ñu limité togg bi ñu xam ne lekk bi bu jeexee foofu la yem parce que reer a ngi ñëw xam naa bu ñu ko doon organisé noonu xëy na yàq bi du bëri man loolu laa jàpp man suñu rafet ba mu toogee wax loolu mais ñu dëkk biir Touba ci boppam yëguñu sax màggal bi xamuñu ne màggal am na parce que amuñu ko mënuñu ko vraiment macha allah.
waaw kay Fambaye fi ngay daaneeli fa lay yëkkatee manque d'organisation bi mu ngi ci parce que gis nga bi ñuy nekk xale dañu ko tàmmaloon ndax gis nga boo doon lekk ci bool sax ba sa pepp ceeb tuuru dañ la naan de bol dañ koy rafetal lekk dañ koy teral euh, lekkal ndax bu subaa moo tax kenn du tuur ceeb kenn du yàq léegi yow nga ñëw nag gis fii ni béréb bi nga xamante ne béréb bu sell la saint béréb boo xamante ne la waaw foofu la ñaan yi di jëpp ñu fay yàq bi yàq bu rëy ëpp na man neewoon naa aussi nañ ko organiser waa réorganiser ko de telle sorte que comme ni nga ko waxee rek ci biir Touba sax am na ñoo xamante ne dañuy xiif xiif di leen rey effectivement ndoo la ngi foofu noonu ndax boo fa xoolee yenn béréb yi ak yenn kër yi moment boobu noonu ndox baa ngi nekk seen biir kër yi ñu ngi yendu ci biir ndox bi di génn parce que inondation bi amoon na fa donc yooyu yëpp boo ko xoolee te nga ne bi dëkk bi dëkk bu sainte la noonu la ko sëriñ bi bëggee woon visionnaire jàppal bay donc nga ñëw gis fa nag xoolal nga koy gis ngay gis ni que fii yàq kese la ndax xam ba xam ndax yàlla noonu la ko bëggee Serigne Touba noonu la ko bëggee est-ce que du looloo taxul mu ne nit ñi toog leen seen kër ndax booy toog sa kër di lekk lu des da nga koy garde bu subaa nga lekkaat ko doo ko tuur léegi nag fu nit ñi nekk mbooloo yàq bi fu kii nii est-ce que jotul pour ñu réorganiser waat affaire yi pour que yàq bii bu mu fa amaat parce que man mii daf ma daf ma yéem man man man sama xol bi mu ngi nii di dog ndax lii ndax dëkk boo xam te ne nañ ko añ du reer wallaahi xiif baa nga fa ndóol baa nga fa barki démb rek ñu ngi doon jooy yi naan ceeb bi dafa cher ceeb bi dafa cher léegi ceeb boobu dafa cher nga ñoo gis ceeb boobu ñu koy tourner ci suuf ba xam ne c'est normal.
waa Soda macha allah wax nga lu am solo macha allah yow laa njëkk a tontu balaa may ñëw ci Fap Mbaye xam nga da nga raisonné nga ne mag makka da nga gis ne maanaam ñi aji ñoom dañ koy maanaam bu ñu rendee seen farata ba pare tabaski ñoom dañ ko fay bàyyi. parce que makka dëkkuñu fa amul ay amul li nga xamante ne moom mooy ay kër makka amul li nga xamante ne da ngay yóbbaale say fourneau nga xam ne da ngay rendi togg makka da ngay rendi sa farata rek ba ko fa moom la ñuy jëlwaat di ko delloosiwaat ci pays yi nga xamante ne pays musulman lañu di leen ko séddale ñaareel bu mooy makka ay gan ñoo fay dem comme gani Sëriñ Tuubaa yi rek gani Seydina Muhammad ñi nga xamante ne ñooy dem aje ñoom ñoo fay dem dëkkuñu fa. kon ñoom bu ñoom tey bu ñu rendee seen farata mënuñu koo togg mënuñu koo li nga xamante mënuñu koo jël foofu lañ koy bàyyi loolu moo tax Arabie Saoudite organisé wu jël ko ren jël ko di ko defaraat di ko delloowaat dëkk yu pauvre yi. Makka ak Touba dafa ute ndax Touba dañ leen fekk ci seen biir kër Touba ñi fay dem dañ leen fekk ci seen biir kër te gannaaw loolu aussi. il faut que nit ñi kenn mun leen a contrôler tey boo amee benn gan yaa ngi ñaan yàlla am li nga xamante ne bu maanaam bu déwénee nga wàccee minicar wàccee fa ñëpp wàcce si ñoo dal sa kër ndax yaa ngi bëgg njëriñ bi nga xamante ne moom la Sëriñ Tuubaa digle bu dee si kenn ëppale mu nekk lu am solo nga tudd aussi accident nit ñi dañuy dem Màkka te dañuy dee dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy makk ñaata ñaata accident moo fa am ñaata nit ñoo ñoo ñoo choc am ñaata nit ñoo ñoo ñoo ñoom ñoo dee makk génn àddina makk te ku génn àddina dañ lay wax naan nañ la fa denc ndax yow kat wàccoo nga ak Seydina Muhammad ndax dem makk dafa bokk si nga xamante ne moom mooy cinquième pilier de l'islam si kaw nag soo ko mënee ba tey kon Touba aussi ngay jóg di dem fas yéene dem nekk ganu Serigne Touba. war a dem bësam jàppale sëñ Tuubaa si bësam bi tey nga am si li nga xamante ne mooy nattu soit sa tànk dàmm wala sax nga génn si àddina nit ki génn si àddina mais nit ku génn àddina yoonu Tuubaa bokk la ku génn àddina yoonu dem dem maanaam maanaam dem soirée Sorano wala dem li nga xamante ne moom moom mooy soirée Grand Théâtre da nga doon dem si yoonu Serigne Touba loolu nag moom dañ koy bàyyee Serigne Touba moom mi woote. moom mu digle moom lañ koy bàyyee bu ëllëgee moom mooy xam ak yàlla boobu subhaanahu wa taala mi ko nangul bësam bi moom mooy xam li nga xamante ne nag moom mooy li nga xamante ne loolu la ñuy fayee jaam mais en tout cas ki si des rek yow en tout cas des na bés bu rafet ndax dañu ñaan mujj bu rafet jullit bu nekk boo xëyee soo jullee ba pare gannaaw bi nga ñaanee gudd fan ak wér ñaan sutura da ngeen a yal na ma yàlla may mujj bu rafet te mujj bu rafet kat dee bu rafet da see am solo te ku génn si yoonu Serigne Touba nga génn si àddina si yoonu Serigne Touba yaa ngi si yoonu lislaam kon génn si àddina aussi am nga mujj bu rafet ndax boo jegee Touba sax yow foofu lañ lay denc te yaakaar naa kenn ku nekk yaa ngi ñaan yàlla ñu denc la Touba ndax li ndax li si sëriñ si wax li nga xamante ne moom mooy sëriñ bi loolu la loolu la si wax si suufam boobu nga xamante ne moom mooy Touba kon nag am na solo dafa am solo lool di xam li nga xamante ne kat yow yaa ngi dem si yoonu yàlla yaa ngi dem fi nga xamante ne ki fa woote ne nekkul yonent de waaye nag jege na yonent bañ koy woyee xadim rasulillahi nga ne ndax day am ndàmpaay amul a- amul ndàmpaay de si si si si ñun mais yaakaar naa ndàmpaay ndàmpaayu yàlla moo gën a foor ndax bu la joxoon ay million day jeex danga koy lekk mu jeex mais nangu mais ñaan yërmande bu bi subhaanahu wa taala ak dem àjjana yaakaar naa ne moo gën milliard te nag képp ku si génn si yoon boobu rek ah ñu ngi am yaakaar ñu ngi am yaakaar bu baax a baax a baax a baax si bés bu rafet boobu nga xamante ne nag moom moom la moom la moom mooy bésu Sëriñ Tuubaa kon nag dañu ñun dañuy maanaam dañu yaakaar rek kon loolu dañ koy bàyyee sëñ bi amul ndàmpaay say mbokk dañuy jooy say mbokk dañuy dañuy dañuy triste jooy ba sonn di les famille lémm famille famille entière wala ñetti nit bokk benn kër génn si àddina waaye nag dañuy jooy day tàllal suñu loxo suñu borom ñaan yàlla ndax ne yàlla nag kenn gisu ko mais gëm nañ ne yàlla buur bi am na gëm nañ ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy gën ji mindeef kon gëm nañ ne Serigne Touba bësam bii képp ku si jàpp yàlla moo lay fay kon ñooñu dañ leen di bàyyi yàlla buur bi subhaanahu wa taala bàyyi leen ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais dañuy nangu ne mënoo def comme comme ni ko ni ko tubaab bi waxee mënoo def omelette te te doo toj nen ndax mu loolu mooy wane ne loo gis rek am na li nga xamante ne da si laxsu màkk gii ñaata nit ñoo fa dem am am na àdduna boo xamante ne ñaata nit ñoo si génn ñoo si génn àdduna kenn xamul nu mu toll seen mbokk yi jooy ba sonn waaye nag ñu gëm yàlla nangu dogal ñaanal yàlla ñaanal seen waajur yooyu ak seen njaboot yooyu fi ñu tëdd si suufu màkka yàlla yërëm leen xaaral leen si àjjana fii daw si kon loolu la ñuy ñaan ñi nga xamante ne ñooy def choc si yoon bi macha allah.
macha allah la sœur si gis nga li nga wax xam nga euh, li nga wax rek jàngal xoolal euh, jàngaat boobu nga jàngalaat fu mu nekk nii parce que ñun loolu la ñuy tànnal da ngay lekk ñu ne la bu pepp ba di suuf bu pepp woddee da ngay far nga lekk ko pour te di loolu ja- du question da nga koo ñàkk wala damay dañ lay wax ak li ngay lekk da nga koy jox ak li ngay lekk da nga koy respecté xam nga parce que yow mii tey di ko lekk am na keneen koo xamante ne amu ko vraiment mu nekk lu métti xoolal li nga jëngal si si si si si si si nawet bi ñoo xamante ne seen kër yi xam nga ñooñu mënuñoo màggal ne taa nañ seen kër yi ndox yu fees na seen kër yi ndox bi nangu na ko ñooñu fi ñuy lekkee fi ñuy toggee xam nga tey jii bu ñu lii ñu tuur noonu bu ñu ko dajale woon yóbbul ko ñooñu dinañ ci am dara moo tax ma ne est-ce que benn instant tamit jarul tamit ñu toog fii nii parce que ku toog sa kër toggul lu fa mbooloo bëri bëri xam nga tuur ceeb ba duñ ko tuuri duñ ko tuuri dinañ ko dajale parce que koñ bi yëpp ngay jël dañ lay gis ñëpp ay séddale kër gu nekk dinañ fa fëgg jox la lu des ñoom dañuy denc pour ñoom suba ñu mën cee togg toggaat ko xam nga moo lay wan ne yàq bi bëri na bëri boo xamante ne yenn yi yàq yi doo ci am yàlla doo ci am yonent doo ci am sax sëñ Tuubaa mi ngay kiwal parce que waxul ñëw leen yàq dafa ñëw ñëw leen màggalal ma ñëw leen ngeen benneel ma mais waxuma ngeen yàq ba pare waxuma ngeen ñëw di puukare te lu ci bëri ay puukare la maa def lii fii la jaarax yooyu noonu ñu war a mën a xoolaat bu baax nu ñu koy tegee nu ñu koy defaraate ba nga xam ne yoon dina ci jàll ba ku mënul ñu xool ñoo xamante ne mënuñu see jot ñu jottali leen si vraiment.
waa Fambaye macha allah madame Ndiaye si yow laa toll ndax damay déglu question yi doog a mën a euh, ñëwaat mais li nga wax aussi euh, li nga njëkk a wax mooy si gëlëm maanaam man de gisaguma xew événement fii Casamance moo tax ma waxee noonu fi ma koy gisee rek gëlëm fu ma ko njëkk a gisee mooy Touba Touba laa njëkk a gisee gëlëm dama ko daan gis si film yi xool ko mais Touba laa njëkk a lekkee li nga xamante ne moom mooy ndaw lu gëlëm dañ daan dem si euh, bu ñu daan euh, maanaam jour euh, maanaam laan demee màggal dañ daan dem fe- fee ne jannatu di xool gëlëm yi ñu gis nit ñi ñëw di di di di xool naan lii mooy gëlëm kon nag foofu laa man man man man euh, dimension boobu laa waxee bu fekkente ne xaadir yi moom dañuy rey euh, maanaam dañuy rendi gélem gélem boo gisee tey Sénégal xam ko grâce à màggal moo tax ndax dañuy xool nit ñi ni ñuy demee di indi gélem kon tey bu demee tey ba nga xamante ne kër yi sax léegi sax ñoo ngi rendi gélem kon exemple bi man sama xalaat bu gàtt Touba moo tax ndax xam nga Touba ñëpp fay daje xam nga xam nga gàmmu xaadir yi mën nañ ne xaadir ki ndax gàmmu moom day fekk ne ñëppay gàmmu mais màggal benn la ñëppay daje Touba te xam nga dañuy xool di gis ku si nekk nga jël ko di ko yóbbu ndax loolu mooy bénéfice bi ku si nekk xam na ne lii kat ndekete dafa bokk si li nga xamante ne euh, yàlla da ko daganal jullit yi pour mu lekk ko.
macha allah la sœur Bintou dëgg la mais màq tamit dañuy togg de parce que nit euh, parce que màq tamit mbooloo moo fay daje macha allah tarkala waaw mbooloo fay daje mais secteur bu ne ñi fa nekk dañuy togg mais reste à savoir lekk yooyu des mosoo gis fu ñu wanee lekk yi des ñu koy defee xamuñu nag mais màq tamit mbooloo fay mais li ngay gis dañu lay wan ne mairie fi ñuy dem parce que ku nekk sa assiette lay yor nga tibb lu la doy nga gis li nga bëgg nga tibb ko ñu defaral la ko nga dem xam nga ku nekk ñu defaral la li nga bëgg ñu defaral la ko nga dem fayoon nit ñi lekk ba suur mais kenn xamul rek ça va xamuñu ndax ñu lekk yi dañ koy sànni parce que ñu fa dem ñoo ñu ko mën a expliquer te foofu organisé wu na waaw mais nag lu des nag ndax moom dañ koy yóbbu ci ñoo xamante ne mënuñu jox leen ko wala dañ koy tuur xamul mais comme fii nii parce que màkk boo waxee Touba tamit gan lay recevoir màkk ñoom dañuy dem ñi dem Touba dañuy dem ziar ñi dem màkk dañuy dem ziar dem màggali dem tuub jéggalu waaw xam nga kon donc Touba ñun Sénégal fii ni ñu war a dimbali dañoo bëri te ñu sonn bëri nañ macha allah wax nga dëgg bi sallallahu alayhi wa sallam waaw li ci Touba du ci màkk sa màkk am na ñu fay dem sax dañu ne yàlla naa yàlla nañ fa dee sax pour ñu suul leen foofu yàlla jéggal leen seen i bàkkaar macha allah li nga wax am na solo am na solo mais ci cadre yàq bi foofu war nañ fa teg baaraam waaw war nañ fa teg baaraam amaat organisation bu normal dimbalawaat nit ñi dimbalawaat suñu bopp parce que yàq moom bokku ci jaamu yàlla.
macha allah di wax Fambaye li nga wax dëgg la man de wax dëgg yàlla yàq dama ko bëggul nag ba sama yaram daf ci mën a daw te dëgg naa dañuy yàq di kontaan dinaa li yëpp bés bi yàlla Serigne Touba ko waraloon mooy tax yàq bi bëri ne ëpp na man je disais man dama doon xalaat ne que est-ce que li Serigne Touba bàyyi fii du loolu waruñu jël loolu gën ko tëy mii nii ku ne fi nga toog na nga ko màggali bés bi noonu la ko Serigne Touba waxee woon nañ ko defee noonu est-ce que du waxu weddi waxu kilifa moo waral lii yëpp donc nañu dellu di wax ni que même bu berndeel yi amee ku ne nañ la ko yóbbul sa kër c'est-à-dire def genre benn don national benn don national ndax xam te ni ñëpp ah ñëpp xam nañ ni que Touba rek fu ndóol yi famille ndóol yaa nga fa am pagay ñu def ko don yaa ngi dëgg ñu indi berndeel yi nangu indi bagage yi ak xar yeeg nag yeeg yëpp ñu teg ba pare ñu ne bon nañ ko tasaare ci biir Sénégal gi man defe naa loolu moo doon gën a solo bi ndax yàq bi ma gis nii te lii rek la ñu gis am na leneen ak yeneen ak yeneen yu dellu parce que biir moom wax dëgg yàlla biir dafa mën a am fu mu yem biir benn genre poche bu ndaw la rek loo fa mën a lekk nii la yem te biir wax dëgg yàlla mënu lekk lu ëpp lu ko lu mu lu quantité bu mu war a jël par jour ba pare teg ci biir purux la du jërëm ñamu daaw te yaa ngi dem foofu lekk bu suur mais bu subaa di nga xiif ngay fàttaliku nag comme waa jooju ci kaw di fàttaliku lekk yu neex yu mu fa lekk woon mais est-ce que gënu loon rek wax dëgg yàlla ñu ñëw def ay dow di ko yóbbu di tasaare loolu doon na sarax boo xam te ne def naa mu gën a am solo que lu ñuy togg foofu di ko yàq nii tuur bi man yàq bi tey moom vraiment man man man d'accord ma ko daal.
macha allah ba tey maa ngi ñëwaat si yow Fambaye macha allah si yàq bi nga wax si xeweeg ci ngénte yi loolu yëpp mbooloo la xam nga nit ki booy togg nga nga yow yaa ngi invité mbooloo mënoo leen contrôler mënoo leen yemale waaw mënoo leen yemale mënoo leen contrôler yaakaar naa kuy woote mbooloo ngénte wala xew loolu du yàq parce que yow da nga am bés bésu mbégte nga bëgg koo partager ak doomu aadama yi nga bëgg koo bokk ak ñi nga xamante ne mooy say am di jàmm nga bëgg képp ku si lekk mu ñaanal la nga am si tiyaabo bés bi parce que bés bés bi nga xamante ne dañ dañ ciy sakku ñaan ndax yaa ngi ñaan yàlla bés bi barkeel bu dee mariage la yaa ngi ñaan yàlla yal na sëy bi barkeel bu dee ngénte la ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla doom ji juddu am ndey ak baay gudd fan am wér gu yaram ànd ak barke ak ak ak diine islam kon nag mbooloo ngay woo kon kuy woo mbooloo moom munoo contrôler yow li ngay li ngay li nga war a yemale munoo yemale dara da ngay togg rek ba mu doy nga teg nga xaar voilà noonu rek la mën a demee man de man dama ne man du yàq parce que foog mu des xew bu neex mooy desal ñam mais doo woo ay mbooloo ñu ñoo toog di la xool ku nekk lekk benn kuddu wala gisuñu ñam non non boo demee bay woote da nga koy mën te munoo munoo fa yemale dara ndax loo ndax loo yemale rek loolu mooy yow yaa ngi dugg si loo xamul parce que yow yaa woote yow yaa woote ngénte yaa wo yaa woote mariage muy sa bëtu bësu mbégte sa bësu bànneex nga bëgg koo partager ak say am jàmm ak say dëkkandoo munoo yemale ndax lekk boobu ñuy lekk si rek tiyaa boobu bu si nekk kenn xamul nu mu toll képp ku ñaan rek yow ñaan bi day barkeel parce que yow yaa leen teral yaa seddal seen xol ba ñu ñaanal la kon nag man dama ne événement moom mbooloo nga woote mbooloo ak ba su màggal amul yàq te taalibe yi nag kaay ma wax la nag Fambaye kenn mënul tax bu ñu teggi seen tànk xoolal lii day yokku buñ ko defee ren fukk bu déwénee dañ koy def xoolal dañ koy def mille parce que nag taalibe Serigne Touba moo baaxoo noonu yooni murit mooy xam ne ne amul gannaaw en arrière moom amul en arrière en avant rek waaw kon nag lii moom wax ne Touba dañuy yàq moom wax ñu yàqu la parce que nag ni nga gis nii ren bu déwénee nga gis ko lu ko lu ko raw kanta nag nañu fexe nag ba moderniser ko nag loolu day am solo parce que nag mën nañu xool naka lañu te nag si dañu nekk nag bu si kat asalaamaaleykum rajo la Dakar man la général di nuyu ñëpp di fekk ci buntu bi soxna Fambaye maa ngi lay ziar di nuyu soxna Bintu Seck ma bokkum lébu di ziar bu baax di la di la gërëm di rafetlu kàddu yi am na solo di nuyu soo sëriñ Aliou Aliou Mbengue soxna Soda yaay sëriñ Aliou Mbengue de maa ngi lay ziar di nuyu Malick Dieng di nuyu général Papis di nuyu kanwaay kanlaa bi seen ci kaw kanlaa bi seen ci kaw defe naa yéen daal bi seen ah Archie Pamba Samba Lay Sarr euh, Lay Boston sa xarit may gay bokkum te ngeej di nuyu ñëpp rek di nuyu Tilly Mbeng borom New York City maa ngi lay ziar xam naa léegi nga dugg thème sa thème la ñëwul ñëwul ñëwul ñëwul laaj ñu ngi lay xaar comme soo nu ko waxee affaire circulation moom ah dee ci loxo yàlla la vraiment dañuy ñaan ñu des ci yoon bi rek yàlla na leen yàlla yërëm mais loolu yëpp tamit chauffeur yi ëpp yi njëkkante yi say nelaw du doy ngay njëkkante oto yi ne yow da nga kii yaa koy jiitu wala ngay njëkkante pour am ay clients yooyu noonu am na yoo xamante ne moom yow yaay nit da ngay sabablu mais am na yoo xamante ne yenn bu nit dee sa si say erreur kooku yow yaa ko rey parce que vitesse bi ngay daw yi di përti fërti di njëkkante nit ñi kenn sant la ko parce que si yoon bi day xat circulation bi day seeri ñëppay bëgg a dem kon ñëpp dañoo war a doxee naaka ba yegg mais da ngay gis circulation bu dafay doy waar day délicat day gis ñi dawal dawal yu salte loolu ko fa dee ñoom ñoo ko rey ñoom ñoo leen rey seen tayeef la
parce que borom bés bi nag ye- yàlla kese la macha allah wante yàq nag wax dëgg yàlla bokkul ci yàlla ni wax ne que sañse yi yëpp tam si màggal bés bi la rek man sañse yi moom vraiment contre ma ko wax dëgg yàlla ndax ku nekk li nga am li nga mën ngay sañse donc nag sañse yi man vraiment contre ma ko sol beeg simi bi bu la neexee ndax tabaski noonu lañ koy defee dañuy solu di simi di def ba mu ndax nit ku am nekk nit ku ne sa yére sa bésu feet sa bésu bànneex nga koy sol yére bu rafet da nga koy préparer pour sa bésu xew bu la neexee sol ak simi loolu yëpp taar la day taaral bés bi man loolu problème mais li ñuy tuumal moo ma métti man yàq li est ce que jaruloon ñu toogaat ko réorganiser waat ko de telle sorte que ñu tasaare lekk yi ci biir nga xam te ne jour boobu Sénégal njaay yëpp ay kontaan ndax sëriñ bi dafa yaatal yi fii Sénégal njaay la waxoon te boo gisee ñu jël ko yóbbu ko da doon xeexal si l'islam pour Sénégal donc Sénégal tey moo am feet ba ñëpp di jóge fu ne di ñëw léegi da tasaare maanaay saa di yóbbu ko fu ne ba ñëpp mun cee yëg bés boobu ñu xam ne ni tey bésu Serigne Touba xar fekk na ma sama biir kër tey bésu Serigne Touba nag di jox nañ ko waa gox bi bu ñu partage ko est-ce que pour solo ko yàq bi.
waaw salaamaaleykum man maa maa ñëwaat man la sëñ Ndoye maa ñëwaat di rafetlu seen waxtaan bi am na solo. def sama xalaat rek tuuti si waxtaan bi ngeen di waxtaan am na solo bon àllarba kayre moom man moom bi ma nekkee xale ba ni ma toll di mosuma kaa respecté mosuma kaa respecté waaw fii daal la bi bi ma nga commencé dégg ñi ngay wax sa yàggul waaw kenn kenn gi sangoo kenn ci nangam nangam ak man yëpp mos ma ko toppatoo man sangu rek waaw xëy sangu ba set te dama ko dama ko imposé sama benn sama benn njaboot parce que yëpp ay bi- ay kii la ay bidaa la bidaa la ensuite euh, comme ni nga waxee soxna Bintu euh, aada la quoi aada yi fi nekkoon la te boo xoolee chaque fois bu ñuy tere dara rek dafa am dafa am lu ko waral xëy na bu jamono dafa fekk mu xëy na mu tombeek euh, ndox amul xam nga am na euh, suñuy mbokk yi yimaam yi moom lépp lu ñuy tere rek dafa am fu ñu koy teg sax mu tombeek jamono boo xam ne ndox ndox dafa manqué ñu ne bon nit ñi bu bu ngi sangu pour mën a pour mën a pour mën a maanaam yàqanal affaire bi mais boo xoolee sax soxna kii wax na ko soxna sol wax na ko ba ci lekk yi booy lekk ndawal boo dekkee xarit di lekk ndawal dañ naan la xarit xarit du laal nda- téye bool bi xarit di lekk jën ah téye sa loxo xarit xarit du laal ndawal yëpp aada yi ban la quoi yooyu ay aada yu baaxul xarit dafa dafa war a lekk xarit dafa war a lekk fruit légume légume mais dañ ko dañ ko daan imposé nit ñi man xale dañuy téye loo ndab li ndab li nga téye ndab li sa sa maanaam sa loxo càmmoñ bi sa baaraam càmmoñ bi di lekk sa loxo di jor te sa paas nga yem xam nga yëpp dañ koy def pour mu pour te limiter quoi limiter limitation xale foofu ngay limiter xale nag tëj xelam waaw bu wa- bu waree wax sa nga ne noppil ah xale di laaj ci léegi noppil yëpp ay aada yu bon la quoi yëpp yëpp vraiment soo gisee nag bon soo gisee si mbokk euh, tubaab yi raw ñu naari raw ñi parce que ñoom gëmuñu yooyu ñoom li ñu gëm nag mooy xale da nga koy jox gëddam toppatoo ko ah, euh, di ko lijj di ko toppatoo lu mu bëgg nga taxaw ci bu ko defee xale yi ëllëg ñooy nekk mag xale yi nekk nii ëllëg ñoo fi nekk imam ñoo fi nekk ay sëriñ daara ñoo fi nekk maanaam ay xalif généraux ñoo fi nekk ay président mais boo leen limité bu ñu màggee de- ay ay cancre lañu doon cancre bu ñu xam dara
waaw man de man gis naa ko nag euh, parce que si xaadir kii naar yi xaadir yi gis naa ko seen kii yi bu ñuy def gàmm bi dañu teg gëlëm bi foofu noonu teg seen kii yi ak seen xew yi bu ñu ko amee aussi man dañ koy def ak yooyu noonu gëlëm moom yàgg naa ko gis mais moom mosuma lekk ndawal bi gisoo comme ni ñuy waxee ay ndawal kanaaraax yi la fee yooyu yëpp bugguma ko wax dëgg fa neex yàlla mënuma ko sax voilà donc yàgg naa ko gis moo tax waa li nga wax ànd nañ ceeg yow waaw comme Casamance moom je pense pas xam naa dinañ takk ay nag ak xar yax yooyu noonu mais gëlëm moom xam naa Dakar yi ak dëkk naar yi moom moom moom naar yi moom sax ñoom dañ ñoom yab nañ gëlëm ñoom.
asalaamaaleykum wa rahmatulah waa forum Ala Dakar di leen nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen ziar bu baax képp ku nekk ci forum bi rek maa ngi lay nuyu puisque émission bi dafa commencé damay jël nuyoo bi rek teg ko ci loxo Soda ak euh, Binta Seck ñu séddale ma ko jox ma ko képp ku nekk ci panel bi di leen wax ne waxtaan bi neex na am na solo ah, kàddu yu fi jub si yëpp am na solo waxtaan bi vraiment neex na muy màggalu Serigne Touba Xaadim Rasool mi ngi ne dañ ko nañ ko santale yàlla liñ naan nag bis bu nekk ak ki moom bis bi lay tollool ñëpp gis nañ ne bi màggal commencé ba léegi day gën a jëm ci kanam macha allah ñi du wow dem sax ñoo ngi dem ah, biirum bis bi moo toll noonu yëf yi moo toll noonu parce que dañ koy xool ci suñu bopp ñun ñi ay ordinaire xam nga ni ma ko waxee rek ñun ñii ku ci amoon xew tey jii boo gënee bëri la ay xamee gën a bëri ay nit ñu la bëgg sa xew gën a bëri Eh, leneen noonu rek lay demee gis nga sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul moom comme vidéo bi ah, sooda dugaloon fu nekk la waa jóge uti Touba seen paas yooyu ñu paas ba dem Touba amaana buñ duggoon ci dibiteri dañ lekk yàpp berne yi ci la bokk mais ba suñ Touba mel mel noonu donc fi waay war a nekk ñiy jënd ay billet avion jóge ay Europe fu ne nit duggee fa ci àddina dem di dem Touba billet bi ñuy jënd eh, rek mënoon na leen toogal seen kër def ay bernde mais déedéet da leen ne jaral ñu bàyyi lépp dem fekk bisu sëñ Tuubaa boobu santale ko yàlla parce que moo ko ñaanoon lu waay am gëléem ba ci ginaar lu waay am da nga ko ci def mu nekk loo xam te ne ñi si dugal seen alal xam nañ ne bu ñu dugalee gëléem bu déwee ne yàlla may nañ lu double gëléem te boo xoolee un million personne bu ñu demee bii di ñëwaat dana nekk deux wala trois donc yëfi sëñ Tuubaa la nañ ko jàppee rek ni nga ko gisee comme ni mu nekkee rek di ñaan muy dolli te di ñaan ñaan guñ fa def yàlla nangul ñu ko muy xeewal ak teraanga boo xam ne yàllaa ñu ko jagle li ko ni ko Malick grand Malick waxoon temps yi loo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp la di ci sant yàlla bu baax a baax di sant yàlla di naan alhamdulilah rabbil alamin ba mu ñu joxee Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ca biir Sénégal ñu ciy sant kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf ci vidéo vidéo bi xam ne waa ji mu ngi taxaw naan xam ma ñun fii nangam nangam lekk nangam nangam ah lii Serigne Touba- Serigne Touba rek moo ko am yooyu façon wax yooyu sax dafa dafa dafa jekkul yooyu du du waxu nit parce que wax yooyu waxu jaxase la ak waxu féewale la waaw te affaire yooyu boo boo xoolee ñi koy def ñëpp ay dañuy nekk façon bi ñoo xam ne xamuñu si lu lu koy gërir waaw lekk moom dafa la lekk moom Sénégal rek ngay gisee ñi di xëccoo lekk mais boo ñëwee bitim réew fii lekk fii du fi dara yàpp du fi dara loo bëgg la nga da nga koy lekk ba Séné- Sénégal sax boobu ñu nekk sax am na yoo xam ni toppatoo affaire lekk yi du du seen problème waaw du seen problème donc yàq bi nekk fële màggal gi vraiment war nañu ko xoolaat quoi te du màggal rek ah même bu ci ngénte yi noonu la dëj yi dëj yi léegi dëj yi léegi dañuy wut ay garçon yoo xam ne ñooy servir xam nga yooyu du loolu bu dem ba jamono toll foo xam ni ay nit servir ay góor ñëw di sol ay t-shirt di servir ay xam nga ay ay euh, ndox di servir maanaam affaire u maanaam euh, affaire u ay biscuit ak yooyu loolu mais loolu nekkatul dëj nekkatul dëj Sénégal léegi li ñuy xaw a léegi kenn xamul nan la quoi lii bi nga Serigne Touba di woote c'était pas pour puukare li taxul li taxul muy jóg daf ko waxoon ne bu gis bu ñëwee ngeen sant leen sama borom sant sama borom nag mu su imposé kenn pour mu def mu ñëw Touba waaw mais bi Serigne Fallou ñëwee moom moo ne na moom moo woote ok mais waajuram papam Serigne Touba mosul woote loolu Touba donc moom moo ñëw daal di ne léegi sama sama sañoon ngeen ñëw Touba di di màggale fii mu ngi rafet ba tey mu ngi rafet mais nag liñ liñ ko jëlee léegi nii nii nii actuellement nii vraiment sëriñ bi war nañ ci wax quoi parce que ça c'est des dérives ñoo ne benn femme boo xam takk or Sénégal lu muy méttee ndóol ga fa nekk nga takk or ba si kaw ba ci suuf ba sa silib bi ngay sol sax nga fekk naa même silib mu silib mu gi bu mu gidal sax or la mais yooyu c'est trop yooyu yow yooyu yooyu pour lan la yabaate la am yoo xam dafa rafetul quoi dafa rafetul dafa jekkoo si gis-gis te rafetul si gis-gis affaire u lekk yàgg yàlla day tere yàq ndox bi ngay jàppe sax dañ ne la booy jàpp kaas benn kaas bu ndoo ngay wut def ci ndox jàppe ko ndegam ki la sàkk moo lay moo lay tere loolu ah ne la booy jàpp na nga xool li ngay jàppe bul yàq ndox booy lekk bu ko bu- bul yàq lekk lekk kenn du ko yàq parce que yow lekk lekk bi nga yàq am na ñoo xam ne soxla nañ ko te mënu te mënu yëpp Sénégal googu
doon national la war a doon parce que gis nga Dakar bi war na yàlla soo duggee ci banlieue bi non am na ñoo xamante ne ñu ko yelloo bëri nañ wallaay banlieue Dakar Njaay bii jal jóg moom ngay dugg nii oh oh dafa moom non nee naa la doon international lay doon bu Sénégal parce que foo dugg rek am na fu fu métti foo dugg rek am na fu métti ñoo xamante ne parce que man ah man lu may gën a choqué mooy xaalis amul mais gis su fi que éne- événement am da ngay ne nag xaalis bi dañ koy luxu lu ma gën a féetati mooy li ñuy wax rek ni ñuy ne baadoola yi ñoo dàq yàq ci xew mi vraiment Sénégal ba pare ngay ne ki ngay yërëm ci boppam da nga koy yërëm mais suba nga gis ko mais bu nee naa booy dimbale nit ki te yàlla tax nga bëgg a xool lu muy def wala doo ko mës a dimbale parce que ki ngay yërëm ci boppam mooy def loo xamante ne suba doo ko ko yërëm te ñu ñu war a dimbale ñu sonn fii bëri na boo xoolee Sénégal euh, dëkk bi yalwaankat yi fii Dakar dañuy gën a bëri de plus en plus léegi yéen di gis ñuy yéen a yalwaan da ngay xool léegi sax yeneen dëkk étranger dañu ñëw ne ku bëgg a xaalis da ngay ñëw fii hmm? bëri na fi ñoo xam ne ay étranger lañ naar yi ngi fi léegi bambara yi ñëpp naar yi ñëpp ñëw fii di yalwaan vraiment mu nekk loolu
soxna Fatima Diop maa ngi lay ziar Serigne Dakar maa ngi lay ziar bu baax Nafissatou Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax a baax wax nee ne yàq daal sa waay yàq baaxul ma lii nag Sénégal dañ ci war a wax waaw màggal yi noonu la gàmm yi noonu la ngént yi noonu la dëj yi noonu la benn fan benn bis nga gis ku jël yëkkati ay centaine de mille de de de mille francs ci affaire benn bés si ay lekk naan rek. waaw donc affaire bi war na ci war na ci waxtaan parce que ngay xool gars yi dañuy jël lekk bi ci turuwa nii xam nga lii rek li li dafa rafetal gis-gis jël ko soo ay sotti ko ci ci ginnaaw dëkk bi yooyu ñu sax yeeg yëpp di ci biiw te day day day ni fe ay ay feebar après weñ ñëw di ci biiw di ñëw ci kër yi sax yi ñëw lu nekk def am ñoo xam ne am lu ñu lekk mais jëlal sax s'il le faut sax ngeen prévoir ngeen fexe ba wut des camions frigorifiques yoo xam ne lekk bu des ngeen def ko ci biir. ah wër daara yi daara yoo xam ne am lu ñu lekk nga yóbbu leen fo- nga yóbbu leen foofu wala yeneen dëkk yi xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci alentour xam ne bon ndeysaan bi ngi noonu nga mais nga yóbbu leen loolu sax wala ngeen jël nag yi ngeen di rey xar yi gëléem yi ngeen séddale ko ah si si bon fépp muri nekk rek fépp xam muri ma nga fa rek bon nga yëpp ko fa tu vois ku nekk am sa sa part moi je pense que loolu moo gën lii quoi parce que lii moom vraiment lu jar a wax la lu jar a kii la parce que dafa dafa rafet bu gis-gis jekkul si gis yàlla bëggul yàq yàq baaxul kenn du yàq waaw yàq kenn du waru ko def vraiment dafa jekkul si jullit ngay jël di di jël ay lekk di ko suul di gas bu waxoo di ko suul di jàpp ay lekk di ko sànni ci mbedd mi dafa rafetul loo xam ne benn fan la rek mbaa jaare fan nga ci yàq nga yàq ci alal yu dul jeex si ay lekk nga naan dong ak ay gëléem ak xar ah bu yàggee xar gëléem yi xar yi xar bi day jeex bu fekkee chaque fois bu màggal ñëwee wala gàmmu ñëw ñu jël rey suñuy xar yëpp ak suñu nag yi ah mbaa ñu am pénurie de pénurie de kii daal finalement dama ragal fa fa la jëmee de bu ñu defal ndànk nii fa la jëmee de waaw di jégalu ñëpp rek di jégalu ñëpp.
waa maa ngi nuyuwaat bu baax kenn ku nekk sa tur ak sa sant rajo Allo Dakar di nuyu général Ndoye waaw mbokkum lébu de maa la ko wax mais lébu bi nag lébu bu gàlli la nag lébu Casamance la maa ngi lay nuyu bu baax di la fay di nuyu Fatima Diop Diop Diop maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar li ngeen wax lépp am na solo Fatima macha allah Fambaye kaddu yafet na macha allah mais comme ni nga ko waxee rek Fatima rek yoonu sëñ Touba moom amul contrôle yoonu sëñ Touba amul contrôle kenn ku nekk rek yaa ngi def li nga xamante ne rek mooy sa kemtalaayu kattan mooy sa kemtalaayu kattan ba nga xamante ne bés bii lépp loo si mën di nga ko si def ma xamal leen nag leen rajo Allo Dakar gis ngeen ñun Ziguinchor nit ñi dañuy teg oto doo fay paas aller retour ba pare nag booleeg booleeg hébergement sa lekk ak sa naan ñoo la ko yoral yore la sa passe aller retour kon nag loolu yëpp mu nekk li nga xamante ne nag bénéfice bu bëree bëri bëri la nga xamante ne moom mooy bés bii nga xamante ne moom mooy bésu Serigne Touba bii di màggal ñi ñi koy def moom ñoom gisuñu si yàq ñu koy def yokkute lañ si gis ñoom ñi koy def liñ si gis mooy li nga xamante ne moom mooy yëkku ba yëkku loolu lañ si gis moo taxit te man dama ne ceeb yi ñu tuur nii dafa fekk ne rek xëy na nit ñi dañoo sore mais màggat da ngay dem màggali ngay ñibbi yób yóbbaale sërite dañ lay may paas may la xaalis ah jox la ay boisson nga yóbbu nga yóbbu say croquette yóbbu say beñe yóbbu say lépp sa biir kër nga dem toog sa kër di ne ngay lekk di naan jërëjëf di Sëriñ Tuubaa kon macha allah lii du mënta ñàkk kuy woote mbooloo moom fa mu ne yaa xam mooy xew yaa xam mooy màggal il faut que rek mu am li nga xamante ne nag il faut que mu am li nga xamante ne moom moom mooy inconvénient parce que ñëpp a yemuñu mais nag màggal moom lépp njariñ la lépp bénéfice la macha allah.
bintu gis nga yoonu diine si boppam moo amul tànk tànk ginnaaw macha allah te xam naa ne màggal moom chaque année moom day gën a kii dama ne ñu organiser wu comme sëñ Touba xam nga wax nga ne sëñ Touba. waxul ñëw leen màggalee ma ko Tuubaa dafa foo ne ma ko màggale sëñ Fallou sama sëñ bu baax ba moo ñëw ne nañ ko màggale ñëw leen ñu màggalee ko Tuubaa ba ma ne bu ñu organisé wu nga xam lii la ñu war a limité parce que añaxreer day ñëw ñu yemale lekk bi ah xam naa ne lépp dina yem te ñi bu ñu toggee mu bëri ñu war ba sori ñu xool côté wax ne mënuñoo lekk ñu yóbbul leen foofu laa waxee ci yàq yi waaye xam nañ ku woote mbooloo moom di nga togg lu bëri moom nga togg lu di nga togg parce que mënoo limité togg mais ñu jéem a xool ñu koy organiser la fekk ñu ko nar a tuur ñu dem jox ko ñu ko soxla même bu dul taataa bi da ngay gis ñoo xam ne dañuy soxla dañ koy bëgg loolu te mais dañ koo dañoo xamul fu ñu koy jëlee
waaw di ñëwaat rek di wax ci affaire lekk yu bari bi bañ koy tuur ak yooyu. gis nga même ñun ñii sunu kër sunu kër yi bu ñu xoolee sunu kër yi rek ñun ñii sunu kër yi rek kër yu ndaw yi rek ku nekk da nga tuur lekk amul kenn ku mës a ne man sama kër du ma tuur lekk parce que da nga togg te li ngay togg xamoo ndax ñëpp dañu ko lekkam déet te li ngay togg fu mu jaar dana am dana am des te kuy toggal màggal xamoo kan ak kan mooy ñëw da ngay togg ba mu doy da ngay togg ba mu doy parce que màggal mooy jour boo xamante ne Tuuba ak li ko wër ak képp ku nekk xoolal nit ñiy jógee àddina bi ñuy lekk bay desal kooku kentaan la te gis nga pour wax nag lekk yooyu ñuy sànni buñ ko tuuree aussi du yàq ci environnement bi lay dem def décomposition def fertilisation donc bu fekkee nit ñi mën ñu koo jëriñoo aussi amul benn mef- effet boo xam te dana ko yàq ci s- nature bi waaw bu ko nit ñi mënoon a tibb di ko yóbbu feneen gaa dañ ko def parce que jour màggal boobu ñi dëkk Touba ñëpp dañuy tibb denc tibb denc tibb denc ña fa nekk nag ñi nga xam te dañoo jóge fu sori mënuñoo tibb yóbbu ñoom tamit duñu am nu ñu def ko fay bàyyi mais foofu ñu koy tuur noonu aussi gaa du question lu kii mais loo xam te ne kenn mënu ko éviter lay mën a am parce que ñun ñii suñu kër dañuy tuur ñam mais aussi ñam yooyu ñuy tuur scientifiquement parlant aussi dafay naatal suuf soosu parce que dafa am ay décomposition comme li ñuy wax rek rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme donc day nekk encore euh, transformation boo xam te dafay continuer dugg ci biir suuf si ñu soxlawaat ko donc euh, affaire Sëñ Tuubaa moom nañ ko gisee rek nañ ko jàppee niñ ko gisee rek loolu daal mooy euh, mooy mooy la am solo niñ ko gisee nii nañ ko jàppee noonu rek te xam ne amul lu nit di wax wala nit di def ba tax mu am benn changement nit ñi dañ gën a bari benn yi day gën a bari te lu gën a bari nag des kon bokk ni li kooku naan ku ci bokkul maanu ci wala ku ci xamul dara noppi ci mooy mbiru Sëñ Tuubaa
waa macha allah ndoy dégg naa la bu baax ñii nga xamante ne ñoom ñooy lekk ñi nga xamante ñoom ñooy wax Euh, maanaam yi fii moom dafa nekk li nga xamante ne loo si bëgg a dégg ngay dégg loo si bëggut a dégg doo ko dégg te nit nee naa nit ki booy déglu na nga déglu rafet na nga fexe am dégg-dégg bu rafet rek parce que bu ñu nee mbooloo rek kenn ku nekk rek day ñëw kenn ku nekk rek day ñëw te ku ñëw rek ak gis-gisanam ak li ak ak li nga xamante ni moom lay waxee mais ñii li ñuy wax ni yëpp sëñ Tuubaa sant leen ko sëñ Tuubaa daal nu mu dégle si bés bi ñëpp yëg nañ ko ñëpp xam nañ ko mooy daal nañu fexe berndeel ko nañu fexe bëgg di bégle di santale yàlla bés bi santale ko yàlla buur bi subhaana wa taala te man dama ne moom dafa wax rek mais waxuñu ëllëgee lan lan mooy suñu fay kon dama ne màggal neex na mais yaakaar naa ëllëg yoo max yam moom mooy gën a neex te jullit moom yaakaar rek nga am kon macha allah euh, euh, nit moom loo dégg rek rafetal ko rek mais ñëpp xam nañ ne mbooloo moom toujours dina am ñi nga xamante ne dañuy déraper toujours loolu moom mënta ñàkk bu ñu nee mbooloo rek am na ñoo xamante ne ñoom dañuy déraper parce que ñëpp yemuñu mais ñu xam solo yi bés bi dëgg dëgg dëgg yaakaar naa tànn nañu leneen lu dul di wax wax yi ndax ñëpp xam nañu Sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim képp kuy jullit rek da nga siy bénéficié wu Limaamu Laay képp kuy jullit rek yaa ngi siy bénéficié wu maam El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu képp kuy jullit rek yaa ngi siy bénéficié wu macha allah lépp nag. nekk li nga xamante ne moom moom mooy njëriñu Sénégal macha allah.
alors asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu léegi nag mun naa nuyu sama gars yi soo damay ñaan rek nga may ma ma nuyoo nuyu ñoom général Ndoye Mrs Ndiaye carton nañu la bu yàgg yow ak ñoom day faatu ziar nañ la bu wér mbaylaan gisoon naa la eh, nuyu waat soxna Bintu seen naa Malick imam Malick ziar naa la bu wér a wér imaam eh, jeex na war naa mun a yem foofu ak Babs LC waaw waaw bëgg a euh, bokkaat tuur ci waxtaan bi rek euh, Bintu dégg naa sa waxtaan man nag yow laa àndal ci euh, ni nga xam ne mënuñu ko contrôler bernde yi mënuñu ko mënuñu ko ku ci nekk da ngay xool ci sa kër tuur nga ñam li tax nga tuur ko dangaa waroon a am ay gan gan ya ñëw la nga yaakaaroon ne loon noonu la ñuy lekkee wala loolu la ñuy lekk lekkuñu ko ñam ba fanaan fa yaa xam damay joxe ay exemple rek nga nga tuur boo ma weddee sooda wala yéen ñi nekk fenn jege restaurant wala dara demal Wendy's demal McDonald demal euh, Red Lobster demal fu la neex li ñuy tuur ci ñam kenn mënu xamul nu mu toll parce que dañuy calculer yaakaar ne lii ñuy togg tey dana baax dana doy euh, ndekete yoo ëpp na donc dafay nekk loo xam ne dafay compliqué lool lool lool lool lool lool sax pour pour vraiment euh, def ci ordre def ci ordre quoi xëy na leen rek na ñu mën sensibiliser nit ñi wax yooyu te xam naa ne loolu wax nañ ba sonn waaye bés bee ni day bés bee toll noonu bés bi euh, benn bés la boo xam ne Euh, sur 365 jours benn kese la ci communauté mouride donc lu ci waay deful surtout que nag ni borom bés bi ni mu wootee la lu waay am na rey donc nit ñi dañuy eh, dañ ci dañ ci def fulaak fayda def ci kattan def ci jom ba nga xam ne vraiment parce que kenn bëggul tamit sa ay gan ñëw lekkuñu wala sa ay gan ñëw ñu naan di ah, mbir mi manqué na même bu jëlee suñu kër ku ci nekk sa kër loolu doo doo bëgg loolu am par conséquent loolu moo tax ngay prévoir loo xam ne ñëwagul et encore dafay metti trop te compliqué bu fekkente ne xam nga sa ay gan sax mooy mooy tane xëy na xam nga ne invité naa euh, euh, madame Ndiaye invité naa Babs Ndiogu invité naa kii ñooñu dinañ ñëw ndegam ñooñu maa xam ma xam ne dinañu ñëw sax laay togg mu ëpp pour ñoom waxuma la ak nag nga xam ne màggal fu waay dugg mën nga lekk ña togg ñooñu ñëpp ña fa dugg ñëpp am na ñoo xam ni xamuñu sax genn wàll gi ña fa lekk donc mënuloo xam gan jóge fële ca àll ba ñëw nga naan ko noo ceeb bi jeex naa kii non mag bés bay toll noonu léegi nag ma ñëw ci au- beneen audio pour exprimer leneen. waaw leneen li ma bëgg a wax muy euh, li nga xam ne kay li nga xam ne kay moom moo moo moo jara wax mooy euh, digal nit ñi. pour ñuy tàmm di saraxe di joxe lekk di dimbale néew ju doole ji kañ nga gëj a lekk yàpp mun la man gàmmu daaw kañ nga gëj a lekk yàpp mu ne la yàpp mu ne la man man màggal nga laay xaar ba màggal xaar maa ngi xaar ba tabaski am nañ dëkkaale yoo xam ne tabaski dañ may may yàpp déedéet warul demee noonu warul demee noonu dafa war a demee de sorte que nit ñi bu dul màggal wala gàmmu wala tabaski dañuy dimbalante su ma nee dimbalante waxuma yëkkati xaalis di joxe mais di fiit nit ñi di leen jox ñi nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi ndey faatu du ma weddi loolu lay def ñu ngi ci mbedd mi amuñu fu ñu ko jëlee amuñu lu ñu lekk surtout Sénégal léegi léegi nii ni mu ni mu demee nii mais les gens ne mangent pas à leur faim les gens ne mangent pas amuñu ko da nga ma weddi dama ci taatu portlam ba fële guddi nga xool nit ñi ay cere ak meew la ñuy la ñuy reyante yàpp xalaatuñu ko sax. ne kenn dugg fii wax ma ñu nekk waa Sénégal ana ana ana ana yaa umulaam dugg leen fii bintu yaa ngi fii kilo yàpp ñaata lay jar yàpp xar kilo yàpp nag ñaata jën ñaata mais loolu du ñëpp ko mën c'est un problème de survie par conséquent nit ñi ku ko ci mën ku ko ci mën loolu sax la guide religieux yeeg yooyu war a waxtaan di quoi nit ñi di dimbali nit ñi di leen jox di di ñu ñuy lekk quoi mais c'est cela mais pour revenir ci yàq gi nga xam ne moom moo tax ñu toog fi tey moi je crois que dafay compliqué trop difficile trop àddina bi yëpp a jonkontee loolu dafay compliqué pour vraiment ñu régulariser euh, euh, régler maanaam régulariser réglementer euh, yàq gi mënuñu ci dara ku ci nekk sa kër fii di nga yàq c'est compliqué mais il faut rek ñu sensibiliser nit ñi ñuy gën a joxe lekk bu dul bu dul màggal dem jënd ji dem jënd ji dem Mali dem jënd ji ay mille têtes de bœuf te yow leer na ne mën nga ko def chaque jour bul jënd mille chaque jour jëndal benn nag togg di joxe chaque jour loolu yaa xam yomb na waaye dajale ko ba benn jour mille nga daal di jënd mille pour ñu ne yow yaa jënd mille nag pour ñu ne yow yaa yow yaa jënd quatre-vingt-dix mille xaw ma lan ngëlem boobu aussi amul njëriñ.
ah macha allah macha allah papis yow yaag Fatima Diop mention spéciale yéen tëj ngeen débat côté yàq bi dama ree ba sonn mais papis dajji nga ma wax nga dëgg de kilo yàpp nag ñu ngi koy jaaye trois mille kilo yàpp xar ñu ngi koy jaaye quatre mille macha allah te xam nga ne dépense quotidienne fii Ziguinchor bu neexee ba neex 2000 la yem kon kooku amul moyen bu mu toggee yàpp ba nga waxte ma di nga xamante ne moom mooy yàppu xar kon yéen da ngeen tëj débat yàq bi du ma si yokk leneen Touba moom wax ko sax wax yàq nga sax yow moom da nga mel ni yow da ngay da nga da nga da nga da ngay sotti ndox si si li nga xamante ne moom mooy géej ndax géej ku fa tibb tamit kenn xamul ne tibb nga kon kenn mënul tax. ba bësu Serigne Touba bi nga xamante ne benn la ci la la ci santaane ba mu wàññeeku day yokku day yokku bu baax a baax a baax a baax a baax te man dama ne man yàgg naa dem màggal de mais wax dëgg yàlla xëy na ginnaaw Touba la bokk mais man mosuma ko gis biir Touba parce que nag dañuy ne Touba une semaine la avant màggal bu ñu màggalee pare ba gàmmu gan yaa nga fa kon nag man de mosuma ko gis mais nag lii Touba la xewee comme niñ ko waxee mais wax ngeen lépp wax ngeen lépp kenn ku si nekk koñ bi dañ daan teg ñamu maam sa bunt si si koñ bi teg ay siiw ay porlo ngir añi des yi ceeb bi des yi nga dem sotti ko fa kon loolu baaxu kon loolu baaxu Sénégal la kon nag desit moom kenn mënu koo tere comme ni ngeen ko waxee rek sa kër sax dangay dafay am desit dëgg la kenn ku nekk sa kër yaa ngi yaa ngi desal di ko dem jox yaa ngi koy jox xar yi wala boog yaa ngi koy yaa yaa ngi xool ni nga koy def kon nit ku nit koo xamante ne yaa ngi contrôlé mbooloo muy xew munoo si contrôlé ba ne man damay limité parce que yow li ngay limité xamoo lu mu doon xamoon ñi nga ñëw yow yaa invité yow yaa ne ñëw leen bokk ak man bë mban bés bi nga xamante ne mooy sama bésu bànneex kon yow nag munoo limité kenn ndax boo sañoon foofu fees del waaw kon nag rawatina nag ñi nga xamante ne moom mooy Touba nga xamante ne ganu Serigne Touba yi nag sëñ bi moon nañ leen teral nañu bég di bégle te dimension boobu dafa nekk li nga xamante ne moo foor ba képp ki nga xamante ne fu waaye mën a nekk rek yaa ngi dem Touba te soo ñëwee looy wax dama gis Touba mosuma ko gis ba mu juddoo ba tey mosuma ko gis Touba kese laa koy gisaatee nag mu nekk déwén macha allah kon nag cadre yàq bi moom yaakaar naa ne moom nag nañ ko wax feneen bu dul li nga xamante ne moom mooy Touba ndax Touba moom sa lépp njariñ la Fatima wax na ko bu ñu sottee ci suuf sax njariñ la parce que beneen temps dañu ngi siy lekk ñoom dañu war a yëg ne ñoom tamit tey màggal la muus yi ñoo ngi ñëw di jël si ndawal bi di yóbbu ñu bég ñu kontaan kon nag lépp njariñ la kon nag moom bu ñuy wax yàq nañ ko wax feneen ak koo xamante ne munu ko waaye Touba moom fi mu dañu kees yëpp vide na ndax lépp de lépp dem na ci màggal ga waaye fii balaa ñu ñoo ngi ñoo ngi waajalaat encore déwén heure bii te boobu tey gis nañ Touba nu mu yokkoo kon nag Serigne Touba moom ay mbiram moom tànku kanam la mais mais am amul tànku ginnaaw papis nag mu ñëwaat si yow ndax yow moom macha allah li nga wax dafa dëggu ba nga xamante ne lu jar taxaw la waa papis macha allah li nga wax am na solo ñi nga xamante ne ñoom ñooy reere ci rek meew guddi ak bëri Sénégal ak bëri Sénégal ndeysaan sa wax bi dafa daw sama yaram ndax li nga wax rek moo ci nekk nañuy dimbalante nañuy jàppalante ndax nee nit ki. ndimbal lañuy la ñuy ëppantee ku la ëpp ndimbal rek ku la ëpp soutien maanaam soutien rek moo la ëpp sutura ndax vraiment ndimbalante manqué na Sénégal nit ki day dawar oto bu rafet di romb nit ñi tabaski jot mu takk xar bu boo xamante ne mu ngi ko jëndee cinq cent mille mu ngi ko jëndee huit cent mille te nga xool cinq cent mille yooyu ñaata xew tabaski la ci mën a am nga xool huit cent mille yooyu ñaata xew tabaski la ci mën a am mais dañ koy tiitaroo sax naan man sama xar bi maa ngi ko jëndee huit cent mille nga xool sa dëkkandoo mais dañ koy tiitaroo am am dañ koy tiitaroo te yaakaar naa ne dañuy wax naan ni borom alal dugal ko si bët mënu puso moo gën a yomb dugal ko àjjana
يا من زاد